ci Théâtre TV ci TNT bi canal 140 daal na jàmm seen émission Dandoole Dandoole di émission buy waxtaanee ci 120 corps de métier yu secteur artisanal tey ñu ñëw fii site bi nga xamante ne bokk na ci site yi gën a ancien bi village artisanal bu Soumbédioune ndax bu ñu xoolee ñu ko taxawal def sa gannaaw Sénégal moom lay boppam te ku ko taxawal rek mooy président bi di Léopold Sédar Senghor donc surtout bi nga xamante ne kenn dootu ko présenté waaye boo fa duggee rek lépp lu yëngu ci wàllu artisanat nag mu ngi fekk ndax corps de métier yi bëri ñu ngi fii ci village artisanal bu soobee ñu xanaa wax sama caméraman rek mu topp ma rek ma dugg mu def tour bi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy artisan yi ñu wax seen liggéey wax ci matière yi ñuy utiliser wax ci jafe-jafe yi ak itam ndax ñu ngi recevoir ndimbalu

secteur ngay yëngu depuis kañ nga ci commencé yëngu ci secteur textile particulièrement je suis un couturier designer depuis bima ma école en 1989 ba tey maa ngi nekk ci ñaw métier bi def ci presque ay 40 ans dama yëngu ci capsule des fois aussi ma laal bant actuellement les capsules moom la gën a jël ko xam nga loo gis aussi day nek en mode ba léegi bant bàyyiwuma ko mais lii laa gën a comprendre jamono bi muy doxee rek nga ànd bëri na ay matières premières yoo xamante ne dañu utiliser parce que même friperie bi jean bi ñi nekk si fëgg jaay bi dañu dem recycler ko jox ko ay vies de def si ay jepet def si ay pantalon cervelle ay base cigarette génne si ay affaire yoo xamante nit mus mus koo xalaat. léegi

da démb ak tey ni mu demee si wàllu clientèle ci wàllu clientèle bi démb la gënoon am solo ndax démb crise mondiale amul woon tubaab bi dañ doon am xaalis bëgg a def découverte du monde léegi nag crise mondiale dafa am mu am déficit nag touristique sur le plan national. du question client yi dañ fi nek bañ fay ñew mais client dañu dañoo ku ñu fi doon ñëwee ndax crise bi tay bu 100 personnes doon am bu crise bi amé day day laal 50 personnes kon 50 personnes ñu ñëw tas biir Afrique ñi dem Maroc ñi dem fenen léegi kon il faut Sénégal def ben politique bo xamanteni ne day gëna a wàññi de destination Sénégal bi pour le peuple bi nga xamanteni ne osé nañu génn ñu mëna jël Sénégal comme destination ndax bo xolé lu melni Maroc Madagascar dañuy wàññi sen coût de destination parce que xam nañ ne marché bi go down na ñoom tamit dañu jëm go down pour mën a récupérer la la ndaw loolu am en attendant crise bi di jàll ñu mën a remonter war seen barème parce que ni ki tamit il tamit bu jamono ni muy doxee tamit da nga war dox ànd ak moom mais du question nag client yi dañu fee nekk ñu bañ leen fi indi mais marché bi instant bi Sénégal dafa am déficit touristique. yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel. waaw jafe-jafe yi ñuy mooy euh, des fois. Euh, clientèle locale bi ñu ngi leen di jéem a defal ay communication pour ñu jéem a ñëw communication boobu tamit dafa def un peu problème ça def foo fait défaut alhamdulilah ku ñu mel ni yéen a ngi ñëw di promouvoir artisanat ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy saluer dina tax marché local bi xam ne vraiment 16 millions lañ kon 16 millions de clients la balaa ngaa jéggaani base bi ñu am fii rek clientèle la te war nañ mën a use li nga xamante ne dañ ko bëgg a cër la tubaab bi te tubaab bi moom ko ñun ñoo ko moom

ben institution la bo xamante mu ngi dépendre ci ministère du commerce mu ngi subventionné yenn voyage artisan yi mais mënul subventionné ñëpp on est des millions bu yóbboo 15 personnes ci foire bi beneen foire mu yóbbu 15 personnes mais par 15 15 15 15 si ay millions day mel ni da defal dara te pourtant ñu ngi def après day yaa tamit waxi noonu mais la chambre des métiers qui est la maison mère des artisans la chambre des métiers nga moom mooy yor artisanat régional bi moom la état bi war a jox doole ndax ñoom seen budget de fonctionnement doyul sax pour administration waxuma la nak wara a jàppale artisans yi si formation ci renforcement de capacité ci subvention sen voyage ci équipement kon nak ki nga xamante mom nga jox njaboot gi da nga ko war a jox un moyen bu doy jël même bu nekkee ben milliard sax ne ko lii sa fonds de roulement la jëlal 100 millions pour formation 200 millions pour équipement 200 millions pour artisan bu bëgg dem nga subventionné ko kenn ku ci nek di gis sa bopp ci chambre bi mais chambre bi dañ ko créer jox ko popularité artisanale bi ba pare jox ko jox doole léegi dañ koy mel dañ koy bëgg mettre en mal ak njabootam parce que bu njabot bi ñëwee di di solliciter ay avantages mënuñ ko si am day naan mais nu mu demee nii état bi du créer institution bu toll nii ba ba pare fekk du ko jox moins kon ñii dañ ma bañ a jox wala dañu tëdd si fekk non état bi moo ko joxul moins dañ na dañuy solliciter état bi nag pour mu jox mooy la chambre maire bu ko defee ne la ñuy jéggaani si ministère du commerce ñu mën ko am suñu këru bopp bon jafe-jafe yi bëri na par exemple même léegi par exemple bugg woon dem boo bëggoon voyage bi yaa ngi def affaire yi pour man dama ne tegul ci yoon parce que ñiy dem toujours ñooy dem man su ma jamonoy pam dañ doon ñëw jël les vrais artisans ñu yóbbu mais léegi affaire bi c'est commercialisé te normalement ki mun ki mun métier moom la ñu war

parce que gis naa bi mu fi ñëwee ba tey ay avantages yu mu def secteur bi boo demee si Oudé ñu ngi réfectionné seen case yi te candidat bi fi jógee dañu doon xalaat fi complètement kon nag moom bu ñëwee def réhabilitation au lieu de délocalisation daf ñuy soulager ñu ñi xam fi la ñu juddoo fi la ñu miin ba pare jël 100 millions def ko fi pour réfectionnement yenn case yi kon mu ngi bàyyi si ñun xel kon nag man kii bàyyi si man xel man moo ma gën a koo xamante ni amul sa programme pour man léegi man sama politique mooy nan la ñuy def ba jàkkaarloo moom à la grand théâtre wax ko nag li ñu bëgg parce que depuis 2000 Sénégal a ngi des di de nouvelle génération mais Sénégal war na am marché artisanal de nouvelle génération boo que les client euh, kii gan bu jógee Palais fii lay ñëw def ay mais war na mën a ñëw fekk un village moderne bo xamante c'est bien structuré bu rafet comme arena bi comme estadu euh, euh, de yi war nañu mën a am joyau boo si enseignants yi ñu ngi leen defal université autorités ñu ngi ay ay aéroport ay monument mais le monde artisanal tamit dafa soxla ay infrastructure de nouvelle génération loolu day attirer curiosité nationaux yi i eh, mais am na village artisanal bu bees bu rafet bu mucc ayib nañ dem xool visiter jënd day attirer clientèle locale bi da tamit day attirer curiosité internationale bi kon ñun tamit dañoo bokk si dëkk bi di di di di contribuer si PIB dëkk bi parce que dañuy dem jënd matière première toog suñu atelier yi liggéey ko jaayaat ko mu nekk devise ñenn ñi nga xamante ni structure yi mënuñu leen euh, financer dañuy ku dajale ba yor xaalis fay presque ay 4000 euros foiru Milan da ngay fay 4000 euros danaka 2 millions 600 jënd matière première liggéey ko fayal ko transport conteneur fay sa billet avion fay sa hôtel jaay jël devise bobu dugalaa ko ci biir réew mi ba paré nak di jangal nit ñi métier gratuitement té ku fi jang école état mo defaral sa école tabax ko fay sa enseignant may la bourse nga dem église jang ñew di wut liggéey té ñun nak ñun ku ñu former 6 ans nga nek emploi direct kon nak bo amé nak ñoo xamante ne ñu ngi lay jàppale si njaboot gi di leen jàngal xam-xam ñoom tamit ñu mën a di dem di liggéey ak seen dignité di si am di si jàngal ñeneen di si yor ay kër eh, defe naa organisation mel noonu da ko war a gën a organiser gën ko dooleel. dañu bëgg nag vraiment bi mu gëstuñu ci wàllu defar suñu village bi te encore defar bi aussi mu nekk defar bi nga xam ne mais defar day bu mu yàgg daal nañu bi nga xam ne li nga bu ñu songee benn affaire tey gaaw a pare. waaw bu doon sama sago mooy nekk président de la président bi nga xam ne moo yor adduna bi yëpp Macky Sall mi ngi liggéey bu baax a baax a baax a baax mi ngi liggéey xam nga ni kii boo ko faraloon la neex ngay wax moom secteur bi commencé am na lu mu ci commencé may yàggagul am na lu mu commencé may yàggagul. parce que liggéey bi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyal argent yi commencé nañu fa mais yeggul gis nga suñu kaas bi nii gis nga seng yaa ngi nii te ñu ngi ci nawet fi ne place boo dugg borom jënd na permis yaabal te dafa rafetul ci village artisanal village artisanal bi nga xam ne ñëpp a ko reconnaître ñëpp àdduna bi yëpp rafetul bu nawet jotee borom place dem ay permis yàlla du yoon dañ ñu war a jàppale dañu war a jubale dañu war a defaral suñu marché ba mu rafet nekk supermarché fii léegi la rek man mi di wax ak yow bi may nekk xale xadam bi ma toog la ma nuyoo fii nga toog nii xadam bi mu fi njëkkee ñëw fii la ma nuyoo